yaa ngi tàmbalee yaa ngi tàmbalee rang xale yaa ngi tàmbalee rang bés bi yegg si waa fili fili sañse waa fili xoolal rang bi New York ak yi wàcc de ay lii baa jàmm la ay lii baa jàmm la <laughs> ah mais gars yi sañ sa génn eh, ndànk ndànk rek doom nday fi ne nii kuñ fi mbëkk ba nga dee dañ lay glacé te duñ ba xew mi passé <laughs> sama gars yi ndànk rek mais petit ci la waa ASC bi mais madame mais doom nday was was gër was gër Papa Ndiaye allah macha allah xool leen li ngeen def leen cëm cëm xam nga ni abo sa abo sa sëfa abo xale yi nii ngeen xool leen line bi tarkal la allah bés bi na bés bi tàmbale kumba look you okay hi looking good mais nii ngeen def xale yi sañse ngeen non New York a ngi wàcc nag li tamit ba jàmm la xale yi teel ngeen na sañse tarkal la nii la heure bu baax bi Bégé. What's up, homie? You good? Feeling cool. Everybody's looking nice. Smelling good. Okay. barkalla macha allah. New York ngi wàcc nii ngeen def. def ngeen de ragaloo leen de. mais Ali Touré Mandik Mori mais nii ngeen def xale yi nii ngeen def mais doomu ndey mais ragaloo nag mais doomu ndey ragaloo ragaloo de gis naa li nga ragaloo de. mais Kumba. is ragaloo de ay ay woon nga la ay ay ay air force nga laal de mais Kumba. non xale yi New York a jongoma yoo ko gisandoo New York City mi ngi wàcc déjà already xale yi sañ-sañ nañu everybody looking nice everybody looking nice xam ngeen ni mbir mi nii la mën a mel mënul mel ne leen lu dul nii New York ak waat waaw mais géwal géwal yabaate nga géwal li nga sañ wala géwal yabaate nga moo mooy xam yi da ko bokk ak ñi mais Adja cëm première dame dam Diop yaa sagal sa jëkkër yaa bëgg sa jëkkër yal na la yàlla defal jàmm xoolal ma lii mais mais mais big brother ragalo wala relax tàngaay bi ku ci sol leneen juum nga <laughs> mais Adja yal na la yàlla defal jàmm baax lool doomu ndeyu ma doom doomu ndeyu ma tooma dama laa fekk gàmbi nga teral ma xoolal ma xoolal ma lii lii nga def yàlla na yàlla defal jàmm xew mi da ko bokk ak ñu ñu mi gi ragalo doomu ndey asu daas ko la sa ko ragal du sol lii <laughs> waaw mais cëm jóoba juba waaw mais jaara ah bi alaa daw may na bés bi alaa daw may na ba lii tamit baa jàmm la cëm doom day tarkalla macha allah sa xool dafa rafet borom Washington donc de ba demal ma xool demal cëm jël teel nga ma teral yàgg nga maa teral doy na Adja bu ko def sama poos Adja yow lii lan la Adja lii dama la koy oh, bu baax bi la yu bari yu bari <laughs> yal na la yàlla defal jàmm macha allah mais Saly nii nga mën a def patriote bu mag bi mais non mais non lii tamit ba lii lii kañ lay jeex ah doomu nday Assane Diouf mu baax mi mais mais caama mais ulay ni yàlla la yàlla ca kaw yow jigéen di woo ñu doomu ndey matoma waaw waaw matoma dama laa matoma yi dama laa bëgg ndeysaan fekk la gàmbi nga taral ma ni nga mel ndeysaan doole doxul jaam jaam yi gàmbi nga doom day ii mais doom day def nga cëët mais Modou Bara Modou Bara da ngaa baax da ngaa mën a joxe ñam yow foofu mu la fekk dama lay jël eh, yow maa ngi ñëw ngay daw eh, looy làkk yow kuy laaxatu ku tàggul sa jabar da nga génn de wax naa la <laughs> waa ASC bi waaw mais nii ngeen def cëm deb cëm debbo nii ngeen def sama xarit bi ver ver ragaloo de mais nii nga def <laughs> ragal du jam guy de non yóbbu nga ma ippo ngaari mais ippo oh <laughs> ah, thank you yaa gën yàlla ki nice ah. oh that's my daughter sama doom jaa ngi ni I miss you. hey Sisi. yaa looking nice everybody looking nice everybody looking good looy laqatu yow ah bàyyi laqatu yi. yaa good. xale yi Mbiragwa yi sañse ngeen. sañseeti ngeen. mais line bi bu ma ko toppee ba du ma ñibbi Ndakaaru Ndiaye. line bi bu ma ko toppee ba du ma jëm. foog waaw mais lii tamit mais doom day. doom day ragaloo de. <laughs> Oh, oh. ma ne line bi bu ma ko toppee baa duma dellu foog non non fii laa koy yemale rek fii laay fii laa koy yemale. dam sa papa sama xarit la Ali Ndiaye mu baax mi sa papa nit ku baax la yàlla na yàlla ko yàlla defal jàmm waaw borom Paris la France waaw wàcce sa loxo bu làqatu bu làqatu borom Paris waa kër Ali Ndiaye man dama leen a bëgg ndax seen baay ku baax la yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen waroo leen a rang sax topp leen ma rang bi bu ma ko toppee danaa ñibbi foog xale yaa ngi nii di yegsi da ngaa tardé moo tax da nga dellu ca ginnaaw dama dawal dama daw leen gaaw ah tarkalla macha allah gis ngeen rang bi Maria Sy New York a ngi wàcc nag te damay ragal ku yéex ñu def ko <laughs> Aïcha looy laaxatu kaay gis ngeen nee naa leen billets yi nag man ngeen ko jënd fii ah, ci biir ñëw leen guys come on in mën ngeen ko jënd doom day kaay bu laaxatu sama xarit bi kaay kaay ne nii mbir yi doy na waar mbir yi doy na waar booy bi man jaaxal na ma booy bi booy bi lu xew mu mu ëppi loo xoolal ñi ñéegi di taxaw line bi fi ne dafa dem ba Sénégal mbir mi doy na waar Ndiaye mbir mi doy na waar Ndiogu Mbaye li mbir mi doy na waar xoolal leen ma mbir line baa nga foofu fële ku ko topp da ngay dellu foog lii kenn xamul lan la. bu mag baa ngi nii maf da bar ba baa ngi nii bàyyi alaaji mbay yow loo bokkul baaxul ticket yi ko soxla woon ko doon def nga lu rafet ba pare ak a jub xool ko indi na xaalis bi ak a jub doo bàyyi ba suba waa mais waa mais lii tamit cëm tarkalla macha allah xam nga ni lii bés bi alaa daw me na ba noppi lii kenn xamul lan la lii nii kenn xamul lan la doom day li ngeen def lii kenn xamul la xoolal ñi la ñu ngi leen ba fële te ku ci maytul di nga dellu foog sama nit ñi nii borom bés bi tarkalla macha allah Moustapha Fall tey bu ñu demee ba ñëpp kontaan sénégalais am lii ba line bi dellu ba senegal ki ya waral bés bi yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla defal jàmm yal la yàlla defal jàmm Mister General T bés bi rafet na Madji rafet na rafet na Fall Fall thank you Fall everybody saying thank you to macha allah bés bi yegg waa New York City lii lii lii wàcc na fii ngi wàcc man xaw ma lii lan la. Jackson MJ <laughs> waaw mais tamit mais mais Thiou. ah Thiou lii ba jàmm la. ah mais ragaloo doom day. man boo feelee ma daanu. lii ah. <laughs> <laughs> Doty matin Gambian people. euro mais euro euro li ba jàmm la <laughs> euro coow li jeex euro mais you look at bi li tamit. xale yi sañ sa jër xale yi sañ ba jàmm la. xale yi mberaaka yaa ngi noonu di soog a yegg si nunu jóob mu baax mi ndaw sànnee daara fa borom waa kii ka la niki waa niki li nga la waa niki tamit niki lii lan la waa niki yow koo yem. niki moomoo ñun moomoo nit ñi cëm New York a ngi wàcc cëm ndaw saa ngeen aram fa xabaram di kii moom su barke xarit ñi wax Wally Ballago fëgg le grand champion mais Elton ama neex mbergale